xasbunallahu wa nixmal wakiil assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu ngi nuyu mbokki jullit yi rawatina mbokk yi nga xam te yi dañuy faral di teewlu jotaay bi lu bari di leen nuyu jullit nuyu lislaam ñaan sunu borom subhaanahu tabaraka wa sunuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla ak ak njëggalam mu mel ni nag dañuy delsiwaat ci sunu jataay ak yóbbulu ndaw ñi muy jataayu xam-xam waaye di jataayu fàttali konte comme niñ ko baaxoo di waxee ñu nekkoon doon jàngale téere wi ñuy wax al jawharun nafis muy téere bu am solo ñu tolloon nag ci wet gi doon jàngale lan mooy tiim te suñu bàyyee xel suñu jataay bi mujj xamle woon nañu ki nga xam te ni dafa jóg di tukki te amul ndox nekk ci aw yoon nga xam ne dafa war a tiim képp ku am ngànt rek ci wàllu ndox ba tiim war la naka ngay def kon suñu jotaayu tey dañuy jàngale lan mooy faratay tiim moo tax mu wax ne faslun lii ab dog la fii faraidihi ci ay farataam moom tiim addu faraidi tayammumi limu faratay tiim duri xameef na ko samaaniya muy juróom-ñett indal faqihi fa way dégg fiq al mooy abdurahman al mu ne kon limu farataay tiim buñ koy lim juróom-ñett la kon farataay tiim juróom-ñett la fan niyatun mooy yéene summa saxiidun topp ak taxuraa bu laab wa darbatun ak dóor uulaa bu njëkk ba bi din ci fëgg omira gog digaleef na ko kasaaka ni ko noonee masxol wajhi masaaxar kanam bi waya day ni ak ñaari loxe minal asaabixi tukkee ci baaraam ya ilal ku xay ni ba ci tikki wal fawru ak gaaw wa duxuulu ak tàbb fiir aw xaari ca waxtu wa wa minhu bokk na ci ay kemam ittisaalu ak jokko bi salaat ji julli gi mu nekkat kon juróom ñett yooyee nga xam te ni mooy faraat farataay tiim ba ca njëkk mooy yéene kon yéene mooy bi njëkk ci farataay tiim joxe yéene nag mooy yéene joxe tiim gi nga xam ne da ngay yéene tiimal jullit nangam bu dee julli wala yéene naa tiimal jullit tisbaar wala takkusaan wala timis kon yéene googu mooy li njëkk kon daal da ngay yéenee laaplu ci tiim gi yéen tamit li ngay tiimal ñaareel ba mooy wut pàkk bu laab maanaam pàkk bu laab buñ ko waxee rek mooy suuf wala lépp loo mën a tiimee tey nekk lu dagana tiim loolu rek lépp loolu mën a tiimee tam nekk lu dagana tiim moo xam suuf la moo xam leneen lay loo xam te ni dagan tiim loolu moom lay tuddee pàkk bu laaw moo daal basit ak dóor dóor nag bu ko waxee mooy teg muy teg sa loxo ci bu njëkk ba teg bi ngay njëkk a teg sa loxo ci li ngay tiimee teg boobu tamit farata la ñaar ñetteel ba mooy massa sa xar kanam massa sa xar kanam boo tegee sa loxo rek massa sa xar kanam ñaari loxo sa xar kanam fi ngay jàppoo fi ngay sëlmoo ngay massa boo paree nga masaa sa ñaari loxo la tàmbalee ci cati baaraange ba ci tikki jaree loolu mooy farata la tàmbalee ci cati baaraange ba ci tikki jara yi mooy fi ngay takk montu wala bu dee jigéen fi ñuy takk jara loolu mooy farata wal fawru ak gaaw bu ko waxee mooy toftale lenn loo def teg caal la ca war a teg maanaam boo yéenee da ngay teg salo loxo ca la ngay tiibee boo paree masa saxar kanam noonu nga koy tegalee nga xam ne doo fa nekk def lii toog di waxtaan wala def lii di xaar déedéet da nga koy def rek nañ la ko sante ca mu gaaw mooy toftale noonu ci faatay la ak dugg ci waxtu wa maanaam li ngay tiimal da ngay bàyyi ba waxtu jot doo tiim dem toog di xaar waxtu wi jot kii bàyyi ba waxtu wi jot nga tiim rek fekk waxtu wi jot na nga tiim ci li ngay jullee maanaam tiim rek fekk na waxtu wi jot na nga tiim rek ci li ngay julli wala tiim rek tàbbi ci li ngay def ak jokkale ko ak julli gi kon warta am tamit ci diggante tiim ji ak julli gi espace ab diggante warta am foofu danga war tiim rek jóg kàbbar mooy jokkale ko ak julli gi mu ne am ma saxiidu ndaal ab pàkk waxuwa moom ak turaab mooy suuf wa tuuru ak xeeru ban wala xajara ak aw doj laa tartaabu déet sikki sàkka wa salju ak galaas wa xad-xadu ak ban buy rémmi rémmi jaa dikk na fi nax ci toxal ga wa nax wuxaa ak yu nuroog yooyee ka sabxatin ni ngi mel ni suufus xorom wa ramli ak beeñ walam yajus daganu tayammumun tiim bil xusu bi ci bank wal jës wala laso matt boo xam bari bu ñu togg bi xawli nuxu bi ci waxi tànneef ya awil asiiri wala rombug jaam aw asiisin wala gàncax mooy lu mel ni wala bopp rek ngay wala bopp moom ñax ñax mu bopp saabitin ba ay sax wa nax wi haa ak yu nuroog yooyee min kulli nabtin ci bépp gàncax naabitin bay aji sax wa in marita ndeem feebar ga mu ne kon nag bu nee fàkk bu laab kon lam ca jublu mooy suuf xam nga suuf moom moo gën ci li ñuy tiimi gën ci li ñuy kon bu nee fàkk bu laab jubluwu ci lu dut suuf wala lu mel ni suuf lu dagara tiime lu mel ni xeeru ban maanaam ban wala lu mel ni doj doju dënd yi nga xam ne benn liggéeyab doomu adama daal tabiwu ci nga xam ne naka suñu borom wàcce noonu lañ ko fekkee loolu mu ne baax na ak tiim lépp loo xam te ni daal naka suñu borom wàccee doomu aadama defaatu ci ay pexeem ndax xam nga suuf mën nañ koo liggéey ba mu nekk aw xeer bu boobaa xeer woowee dootul daganati ci tiim lu mel ni ay ciment lu mel ni ay birig yooyu yëpp daganul ci tiim kon ni dagal ci tiim mooy xeeru dënn yi nga xam day wàcc wala ban dagan na ci tiim wala nga wut suuf wala mu nekk moo xam mu nekk suufu géej dagan na sax xorom ci boppam nga xam ne jëmagut ci fañ koy jaayee da ngaa ñëw fekk rek mu tego xorom ci boppam dagan naa tiim moo tax mu ne daganut ci kii tiim mu tiimee ci bant wala gàncax maanaam lépp loo xam te nii daal day saxee ci suuf nga xam ne mel ni ay ñax walla bant noonu yooyu yëpp daganul ci nit ki mu ciy tiim kon loolu lu jar a bàyyi xel lépp loo xam day saxee ci suuf rek xam nga suuf moom dagan naa tiim waaye loo xam te ni dañ koy def mu sax ci suuf xam ne ay bant yeeg ñax yeeg yooyu yëpp nag moom daganul ci tiim yi ak ak laso bu ko waxee laso moom xam nga am na laso yoo xam te ni kenn du ko togg nam mer rek noonu koy fekk kon boobaa day dagat wala lu mel ni ay xeere kew yooyu yëpp waaye nag ko jëlee togg ko defar ko rek mooy liñ ñu la rek lépp loo xam ne daal doomu aadama da cee def ay pexeem defar ko ba mu ba mu ngir soppi ko rek boobaa dootu daganati kon loolu lu jërë xel moo tax mu ne wa in maritan nem feebar na xindal xaa itil xajari te muy doj ba wattuubi ak doju ban ataaxaaqa ba mu gàntal gis ma ko yaramam ak dara lool ya walam tajit te amut man koo xam te ni yaati dana ko dikke di turaab ci suuf falaka kon ñeel na ko mu tiim fii ci moom roq satan tawaab ngir yombal ak tuubam mu nekk ki nga xam dafa feebar feebar na ba am ngànt amut kenn koo xam ne mën na koo jox lenn lu tiimee lu dagan waaye nag am na miir woo xam ne ni ña ko liggéeyee miiru xeer yoo xam ni xeeru dënn yi nga xam ne moom ko liggéeyee nga ne am na ngànt ci feebar kon boobaa moom miir ba mën na cee tiim waaye miir boobu sax wax nañ ne même ku feebar bi mën na cee tiim sagam dafa nekk miir boo xam te ni koo liggéeyee xeeru dënn yi te fekk tamit xeer yi nekk ci nga xam ne xeer yooyu dagan naa tiime kon nee am na ñoo xam ne ñëpp mën nañ cee waaye bu dee ki feebar moom dañ koy yombal ak tiim ci ay anam yu baree bari ndax dafa am ngànt goo xam ni mënta tiim amut ko te ko ko wutal lenn lu ñuy tiimee kon boobaa mën naa tiimee ci yu baree bari kon ki feebar am na ngànt moom bokkut ak ki nga xam te ni dara dal kooku suñu boom dafa yombal tiim gi ndax ngànt la mu am muy feebar kon daal mel na ni tiim lu gàtt la waaye ay farataam moo bari ndax tiim boo ko doon def ci misaal boo amee liggéey ngay tiimee da ngay jël sa ñaari loxo teg ko ci rek daal di masaa sa xar kanam ginnaaw boo xamee ne masaa nga sa ñaari loxo ba ci tikki jare masaa sa xar kanam kon ñaar yooyu daanaka boo xoolee moom la teg sa loxo ci li ngay tiimee bu dee nag loo xam ne day gaañe dañuy bëgg nga fëgg ko tuuti boo ko fëggee tuuti xeer yee bant yi ci nekk wadd masaa sa loxo maanaam sa cati ba ci fi ngay takk montu loolu mooy farat boo ko defee bu dee sunna si nag waxoon nañ ne dangay ngay tàmbali ci la yam ci cëkki jare yi ba ci conc yi kon kuy tiim da ngay ñëw rek cati baaraam yi ba ci conc yi loolu mooy tiim waaye nag li li nga xam te ni moo ci farata mooy di tàmbalee cati baaraam bi ba ci tikki jawe kon loolu mooy tiim da ngay tàmbalee def lool masaa sa ñaari loxo ba ci tikki tegaat sa loxo masaa sa xar kanam mu jeex kon ñett yooyu rek boo xoolee mooy tiim yéene masaa sa sa xar kanam masaa sa ñaari loxo loolu rek dara boo xoolee ñett yooyu mooy tiim ginnaaw boo yéenee teg sa ñaari loxo ci li ngay tiimee masaa sa ñaari loxo masaa sa xar mu daal di jeex kon nag farata yi moo bari moo tax moo nekk juróom-ñett mooy yi ñu doon limal léegi kon tiim moo nekk noonu nekk loo am solo nekk loo xam te ni doomu aadama bu ne war koo xam ndax kat loo xam ni boo mënta jàpp mën na koo remplacer boo mënta sangu farata mën na koo wuutu kon ku nekk war na ko xam kon ñu ngi wàcce yi ñaanal ñëpp jàmm ñaan suñu moom defal ñu tawféex di sant ñiy teewlu jotaay nekk ci biir réew mi ak ña nekk bitim réew lépp fi jub ci yàlla la lu dëng ci jëmmi doomu aadama la in uridu illa al islaax ma sataxtu ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu